asalaamaaleykum wax ma gars dën nag jaw nag vraiment solo nga sëñ bi <laughs> tey damaa xam ne soo eggee kër ga du ma am émission bii du ma du ma am émission gars yi ngi lay xaar mais sëñ bi tey nag moom xam naa cent pour cent produit neex na affaire yi macha allah mais mënuma ñàkk a dugg si actualité Sadio Mané dafa def lu doy waar ah. sëñ bi gis nga jabaru Sadio Mané kaar macha allah waaw maanaam maanaam fi ko gars yi doon xaar Sadio mane eggu fa. Hmm. dem jël jigéen bu sel xal bu ndaw. Hmm. di muuru. maam am na jàngat bu rëy bu mu jox uh, askan bi suñ jugee foofu may ma tuuti si coow Wally Seck bi man Wally ba man man Wally Seck bi Wally Seck mi ba dañ ko bëgg yàq nag. ah bisimilah. ñu nag dëgg dëgg gars yi dañ ñu nag yow xaas dëgg dëgg nii la de ah. waaw ah, nii la waaw noonu noonu la waaw. gisoo fi ne rëcc loolu nga ma ba xamatuma sax fu may jaar gars yi ah? mais Diaw waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla comme man moom. Mhm. lu ne loolu laay wax julli ci yonent bi ah. Mhm. di ci coowul saajo Mané li ah. man la Sadio lim def la ko lim def. Mhm. lu ko diine sant diine daf ko ni daf ko ni tànn leen soxna. jigéen jigéen bi mu tànn it noonu la ko diine soxla. mooy jigéen bi muur cëram ba mu set ba mu ba mu ba mu daj. waaw ah, lool macha allah kooku dañ koy dañ ko koy sante di wax ni rek loolu lu ko gën a rafet amul ci kaw suuf ah. di ñaanal saajo it yàlla bu leen cat seexlu. yàlla bu leen cat jiitu bokk. ah jiitu waaw ndax ndax ndax xam nga cat jiitu. Hmm. mooy mooy par exemple làmmeñ baaxul. Hmm. te Sadio macha allah. Hmm. dafa liggéey réew mi nag vraiment. Sadio Mané warul warul warul warul. Euh, maanaam bett kenn ci ni mu ci ni mu tànnee. Mhm. ndax Sadio modestam mhm. Sadio baaxam. Mhm. man dafay dund dund boo xam ne man loolu laa gëm quoi nit dama gëm ni nit taalibe rek moom solo man loolu laay dund parce que loolu laa gëm ni moo fi ne aussi. dëgg la mais vraiment dañuy rafetlu loolu di ko ñaanal digganteem ak soxnaam yàlla def fi def ci jàmm. Euh, yàlla doon leen sutura ay waay yàlla na leen cat seexlu. amiin yàlla na leen cat seexlu. parce que làmmeñ baaxul. te moment bi làmmeñ nekk na ci seen kii ba Sadio Sadio ndaw si ndaw si loolu rek ngay dégg. kon dèjà xam nga ni jaw làmmeñ baaxul yow sa bopp xam nga loolu. am naa ko kon nag yàlla na leen yàlla doole sutura. Mm-hmm. yàlla jàppale leen bu baax a baax jaw waaw macha allah. Mm-hmm. yàlla gën koo jàppale diggante ba ak soxnaam. Mm-hmm. ah si bu ko da yàlla bu ko dara changé macha allah yàlla na ko yàlla gën a kattanal te ak lan nga ni comme lakkale nga jaw loolu baax na. Ah, ak lan Wally Seck sëñ bi. Ah. wala man waa këram ñoo ñoo ko bëgg a yàqal. wala kes déggoo di Badiane li nga xam ne ñëpp xam ko ak Wally Seck. Hmm. mu dem ay audio di génn. mais nag giñal giñal naa la ci alxuraan. moo ne la. Hmm. xaw ma ci lu bari rek wallahi barke alxuraan dëgg la. yàlla mi ñu tiim. Hmm. affaire wa affaire Sadio bi nag. bàyyi naa ci xel bu baax yàlla xam na ko. ndaxit koo gis ci àdduna rek bëgg na lu baax. te acte bi dafa rafet. mais diggante waaleeg Sidi Diop ak lépp lépp c'est le Sénégal rek. Mhm. lépp benn la. Mhm. ñi nga xam ne dañoo yàgg ak Wally Seck dem ba mhm. amatuñu foofu wàllu léegi pour mu wax ak la loolu loolu xam nga ànd moom yaay xool rek ku ci nekk xam nga comme man bokkuma ci groupe ba. gars yi dañ ne ñu man man man sama waaw waaw man sama yëfi bopp man tey. waaw nag des fois nag jaw groupe li ñu ne la ca biir kenn du xam de. li waaja li waaja naan cin cin fëkkul bënnul kubéer nga ci nekkoon jugu ci. <laughs> ak dëgg olof nag yàq yàq bëgg ni met meles. <laughs> Eh. kon fu yàq wa jaar. <laughs> ay ah waaw nit ku nekk nag moo lay wax ne la ci biir cin la. Ah. ka ko togg ko xam. waaw n'est-ce ko am na loo xam ne waali moo ko mën a seede. Mhm. waaye di leen ñaanal ñoom ñëpp daal yàlla defal leen jàmm waale ak Sidi Diop ak ñoom ñëpp. d'accord na leen yalla defal jàmm caw. d'accord léegi li ma euh, li bari na. waaw Abdoulaye Diop Khass numéro 2 yi. Hmm. jàpp nañ waaw yaakaar naa nu numéro 3 bi moom moo des. billahi mais nag macha allah euh, coow loolu sëñ bi. moo tax léegi nga jël sa décision bopp léegi di def sa numéro téléphone personnel boo xam ne. waaw parce que ku la woo parce que dama sonn ay hmm. kii dugal naa xaalis fii def naa lii def naa lii te wallaay sa tur la ñuy tur mooy dem. mooy dem euh, Ablaye Diop xaas nangam Ablaye Diop xaas te Ablaye Diop xaas yëgul tinul hmm. léegi moo tax Ablaye Diop xaas dafa obligé. Hmm. joxe numéro direct numéro direct am <laughs> euh. mooy 77 711 24 39 ku woote xaas ngay jot daal jaww. Hmm. loolu na ko nit ñëpp bàyyi xel. Euh, di ñaan yàlla réew mi yàlla def fi jàmm. léegi dimbali ma benn bu ndaw rek. waaw vas y vas y xam naa ne woon dëgg a jaww mi. waaw sonal <laughs> euh, bii mooy. Hmm. dañ def émission ba barki démb. Hmm. nga ne ma at bi na ndaw yi ut kaaraange. si sëñ bi matagul une semaine. gis nga coow xale yi réer. kenn ki ñu fekk ko. Mhm. ñu la ko ñaari émission waaw waaw waaw waaw. baax na ku ci deful kaaraange xam jamono bii ñu nekk parce que nag. Euh, mhm. xam nga xam nga fii ak 2024 laa waxoon. Mhm, na ndaw yi nañu utal ndaw yi kaaraange te téye seen doom yi. parce que foofu la rew mi toll aussi. parce que doy na waar. te ci ndaw yi lay féete. day am at yoo xam ni atu ndaw yi lay doon ab at yoo xam ne da ngay mag ñi lay doon. mais at mi atu ndaw yi la. te kaaraange dafa am solo. ñuy moytu rek ni xam nga Serigne Cheikh nee maanaam loo defewul ni yàlla du ko seetaan. Mm. nee na seetaan na lu ko raw. dëgg jaww gis nga jamono boo toogee. Mm. almaxtum nee yàcc rek wóorul quoi. Mm. nga toog rek nga ni yàcc. loolu kenn du ko def nit da ngay toll niveau boo xam ni. foog ngay bàyyi sax xel. dëgg la tey ñaaw njor te ut kaaraange. Mm-hmm. parce que bu nit xàccoon paaka di la jëm. Mm-hmm. nga teg ko ci yàlla baax na <laughs> ah. paaka bu ñëwee boo moytul ñu dem robi la tuubaa waaye boo defee ay effort mën nga cee mucc. kon foofu la réew mi toll. ne nit ñi ut ba kaaraange bu baax ñu for benn xale bu jigéen ci géeju Malika bi mm-hmm. mu mel ni rab da ko fa dugg mm-hmm. wala mu mu nekk fa di loolu la la sëñ bi am na ñoo xam ni am na ñoo xam ni seen naturel ni seen rab ci ndox lay nekk ah. daf leen di woo ci ndox ah, am ci mais euh, bëri na ñoo xam dañ da nga leen wax demal demal jàngi ñu dem ñu dem ci ndox mi toog loola dem géej toog loolu bëri na ñoo xam ni bu ñu meree bu ñu jàkkaarloo ndox giif parce que seen rab ndox la nekk ci ndox la nekk léegi loolu la leen dal man nag li ma dul d'accord mooy su ma demee ba rab di ma dalal wala di ma yëngal may yëngu wala lu mu bëgg ma def ko man loolu laa dul d'accord boo gisee may tere rey lu noonu la aussi mm-hmm. parce que nit ki li nga gën doo ko reyal li nga gën doo ci nekk di def ay affaire yooyu daal jaw jaw nag damay dala dawal <laughs> wasalaamaaleykum wa rahmatullah